moo xam nga faatu waaye balaa dikk ci loolu dinañ leeral jëmmi watu mooy lan wala jempu loolu nag lu am solo la ci ñi xam ne dañoo nekk ci ajug màkka wala umra xëy na jamono ji moom jamono umra lañu toll ndax ak paase na léegi nag loolu lañ fas yéene waxtaanee muy nekk lu am solo ci dundub doomu aadama gi watu nag am na ci ñu dëppoo ne sunna la ci borom xam-xam yi am na ci ñoo xam dañuy jàpp ne def gi luñ sopp la waaye liy gën a topp ñiy gën a wax ne mën na nekk sunna boo demee ci xanaa bi lay ñoom dañuy jàpp ne wat sunna lay doon bu sa karaw sëqee nga wat ko loolu sunna la kon soo ko defee da ngay def sunna mu akkad bu dee almazhab al imam malik bi nga xam ni moom la ñu doxal ci wàllu Sénégal ñoom dañuy jàpp ne sa karaw sëq nga di ko toppatoo moom lañu gën a sopp ci watu kon am na ay ixtilaaf teewul nag lu baax la ci dundu doomu aadama nga watu fa imma nga jemp wat nak moy lan sa karab gi sëq na nga dindi leppam set lol lañ wax wat budé jemp nak moy nga wañi sa karab gi bam yem nga diko defar lol lañ wax jemp lol nak ci ñin gëna fonku moy ci ñi acc makka wala ño xam dañu nekk ci umra budé julit jullit na nag ci liñ sopp ci borom xam-xam ni bu wër tabaski téro fi ak tabaski bi dañuy téré ngay watu mën nga bay ba tabaski bi jall nga dog watu moy ci fukkeelu fan ba ak ñaar wala ñett dig digal ba mën nga ci watu ñu bobu lañu gëna sopp am ñoo xam tabaski bi jup seen ak ñu watu soppé su ko bi ci dessat moy ki nga xamné demo aj makka ci période bobu luñ sopp la rek waaye du farata moy nga baña a watu ba fukkeelu fan ak ñaar wala ñett nga dog a watu booy da nga nek nak ko xam da nga nek di aj wala omra jemp lañ lay wax nga wàññi sa karo gi ba mu yem kon loolu bokk na ci yi nga xam ne am na solo ci jullit bi bu dee takk-takk nag yi ci am lu mat a bàyyi xel la nit ki pour ñu def la dara mbaa ñu def benn jeexital mu ñëw ci yow ñett yi da cee bokk looy lekk wala looy naan wala looy sol wala lu bàyyi ko ci yow lu bàyyi ko ci yow nag li ëpp li ñuy faral di gis mooy sa karaw moo xam góor wala jigéen nga dagg sa karaw sànni waaye laa ñëwaat la loolu nag mag ñi daan nañ ko wattandiku ndax dañ ci am takk-takk eh, bi ci desaat mooy jeexital yi nit ki mandé pour ñu mën koo jàpp mooy nga wat sa karaw sànni ko fa la neex moo tax ku xam dëgg-dëgg du def fu mu jekku rek watu wala ku lay wat koo xam lay doon soo noppee nga jël sa karaw sugul ko fenn loolu lañ sant ab jullit mooy tax nga mën a mucc ba mag ñi daan ko def pour njabar jàpp leen daaw du yomb waaye ki nga xam ne moom fu mu romb barab watukaay rek daal dugg watu bu noppee ba fa karawam am na koo xam ne mu ngi la topp pour bëgg am ci yow dara mën na fa ñëw dugg mel na kiy bale wala kiy nangam cër sa karaw yóbbu mooy laa nit déclaré ne barab sàngam su fa ñëwee diw ñëw ñëw watu dimbale ma karaw nga dajale ko dencal ma ko am na ñu bëri ñu ngi leen liggéey du lu nekk duñu naan waaye seen karaw gun watoo ndax karaw dafa bokk ci jeexital yi nga xam ne daa bokk ci jeexital doomi aadama yi pour jàpp moo ko meuna mën a nga xam fi ngay wato ba wato ba noppi nga jël sa karaw dem denjal ko sa bop ko sa bop du ko man nga def ko ndax dana bok ci tax nga meuna muccu ci njabar ndax jamono ji njabar gi bari na lol fu way jógee nit ñaa ngi lay bëgg njabar say mbokk say am di jàmm ci ñi nga bokal liggey ñom ñep ñu ngi lay fexal mok sa yele fo jug sanni lolou ko meuna a say dal yoy pour def la dara mu jappal dafa yomb bi ci hmm, euh, wat nak amna ay période ko sop période yoyu Euh, liñ gën a sopp ci wàllu watu gaaw baax na ci mooy bisub samedi sopp nañ ko ci watu ndax tak tak yi ci mag ñi am euh, koy def yàlla mën na dogal mën nga gudd fan te damay faral di wax ne yàllaay rey waaye lii tax nga gudd fan yow yaa koy def du nag farata waaye luñ sopp la loo xam ne lii nga xam ne danga koy wattandiku te du la yàqal dara def ko mooy di gën bu nee bul naan ndox mi ndax boo ko naanee mënal jural feebar donte yàllaay rey waaye nga wat wattandiku bañ koo naan ba mu bañ laa jël mooy li gën kon ki nga xam ne dafa jug ne damay xaru ji bu demee ci diggante bi lu ko ray moo ray boppam ndax dafa jug am si intention pour dee waaye ki nga xam ne bu nee wattandiku lii mën na laa bañ a rey boo ko wattandiku boo deewul kon amaan yaa bañ a rey sa bopp kon loolu lu mat di bàyyi xel la kon bisub gaaw sopp nañ ci wattu lool nag moom lañ gën a sopp ci bisi wattu yi euh, dañuy wax ne ku koy faral di wattu yàlla mën na dogal mën ngaa gudd nit ki li tax nga gudd fan jar na def ndax alakhirah mom xamagun kañ ak naka la te su day suuf yag na lol kon bu nee di boko defé defee gudd fan def ko yàqu dara beneen bi ci topat moy bisub altine altine dañuy wax ne li mag ñi di faral di wax di ko faral di watu bax na lol ndax day tax do ñak ndax gaay mom ciow coow luy bari bari ak ñak rek lañ ragal moy xey yoro dara kon luñ ne boko defé do ñak war nga gor ngaa ngir yalla nga def ko ngir baña ñak donte donte ay xañe wërsëg waye sabab yi tax nga yok ci la bok kon bis bobu bis buñ sopp la aljuma soppé su ko wat moy ku koo xam sa wajur nga dundu di soppé su ngay watu aljuma ndax dañuy wax ni ku koy def man na baña guddu fan sa wajur man na la baña a sa ndariñ kon asbab la ci asbab yi tax sa waajur ba ñu fekkee si njariñ kon bëggoo kenn bëggut di liggéey bëgg yéene tere waajuram ba noppi muy def li tax waajuram di fi gudd di fi jugee kon yooyu bokk na ci njariñ yi tax su ko nit ki dee def yàlla mën na dogal mën ngaa gudd fan. bisub alxamis tam mu tombeek fukki fan ak juróom baaxut di ko wattu ku koy def mën ngaa gàtt fan lool sax baaxut àllarba dafa bokk ci biis yi nga xam ne ëpp lu ñuy fatt doon dana am ay bis yoo am da fatt kon dimanche kazalika niki noonu soppeeku si wat waaye ñetti bis yi ala kulli xaal wala ñaari bis yi lees gën a soppi ci watu bu koy mën di watu boo ko defee yàlla mën na la dimbalee yi ngay wattandiku mën nga cee mucc ndax jaam bi lépp loo xam su ko defee dana ci mucc jar na mu def ko euh, bi ci desaat nit ki su watoo ba noppi na jël karawam dajale bam àgg mu denc ko bisaat xamal ki lay wat mooy kan bul def foo jug watu xamal ki wat mooy kan ndax mën na wat wala mënta wat bëri nit ñoo xam ne jafe-jafe bi leen dal ci watu moo leen ko teg watoo fenn nit jël sa karaw def ci dara watoo fen nit wala te xam nu ñu watee mu dëpp sa karaw la ay jafe-jafe ci wàllu bopp kon yi baaxut ànd saa boo ko boolee rek mën naa la indil jafe-jafe kon ki watu xamal fi ngay watu ak ki wat kum doon kon yi ci ay suróot la bokk mooy sart yi tax li nga bëgg a mucc suñu borom mën la cee mosal li lañ wax nañ ko leeral ci nit ki ci watu ak nan la ko war a defee gént watu nag bari na ay misaal yu muy tegtalee du tout le temps nag bu diw génte wattu rek ñu ak ñàkk la déedéet déedéet tegtalewul ak ñàkk de beneen bi ci desaat gént watu am na ay tegtal yu bari yu ci nekk am na fu muy tegtalee ak ñàkk ci ñenn ñi am na fu muy tegtale ak njéggal ci ñenn ñi am na fu muy tegtale ak yàqule am na fu muy tegtalee ay jafe-jafe ci laay kàttan doomu aadama bi fi mu toll ak ci ay misaalam kon loolu lu caagi ne soo génte wat rek déedéet ba ci génte wat day tegtal aj ndax lu koy misaal mooy saa salaam ba mu eh, ci gént ga yàlla ne ko dangay wat sa bopp bi jemp sa wat bi wat sa sikki bi kon boobu mu ngi koy waaj loo at kon loolu lu ma di bàyyi xel la beneen bi ci toppaat yéen gént watu fu la neex watu fu la neex baaxut ndax ci misaal yi borom xam-xam yi joxe dañuy wax ne ak njabar gi waxoon dafa jàpp yent bi bokk na ci jeexital yi mooy karaw goo xam dafa watu woon ñu jël ko def ca lam ciy def ba ak njabar jàpp ko ban wàccee fallax ak naasi kon loolu bu dul dara ay misaal la ñuy waxtandiku ne nit ki waroo jug foo def watoo sagam ki yàlla ni ba yàlla ni ko lépp loo wax moom laa wax loo waxut waxuma ko su ne ba ay nit def ak njabar mu koy jàpp njabar lu mën a jeexital nag waaye ci bi isnillahi ci ndigalul yàlla ci lay jot jàppee ndax dafa mën a def ay jeexital lool nag xëy na ñenn ñi koy jiima weddi wala di jiima ñàkk xam ñoo ñàkk xam waaye la yàlla wax ci alxuraan du deñ maa yufarriqu bihi bayna al mar'i wa zawji li ci njëkk mooy day teqale ñaari jëkkër ak jabar teqale yaay ak doom teqale mag ak rak kon jabar jeexital yooyu da koy faral def ci doomu aadama bi euh, bu fekkee nag danga doon ñaanal njégal sa waajur bi faatu nga gént gis ñu wat ko ba mu set loolu nga gént loolu dañ lay xamal ni yàlla mën na koo jéggal fa mu nekk mooy mën ngaa rafet njort na yàlla jéggal na ko loolu ala kulli baax na lool ci gént bu dee nag da ngay listixaaru aju ci wàllu sëy nga gént ñu wat la ba sa karaw gi jeex tàkk loolu baaxul loolu saa bu amee da nga dugganteeg jigéen joo xam ne bu doon da yor as néew la nga yor ko si néew balaa seen sëye gudd fan yow dootoo yor dara yow da nga ñàkk ba dañ bañ lay dimbali. kon loolu lu mat di bàyyi xel la mooy misaal lañ la dara danga ko war a wattandiku euh, beneen bi ci desaat mooy koo xam ne dangay waaj a dugg ci dara palaas walla kër wala oto gént nit di la wat taxamoo xamoo lay wat kum doon loolu ak tere la de loolu ku ko gént rek yëgal ni ak tere la bu baax ci mbir moom ngay dugg mbir moom ngay dugg yaa ngi ciy waaj a tàmbalee dugg waaye mën nga cee am ay jafe-jafe yoo xam ne dana tax ni nga waroon avancer mën ngaa bañ a avancer mën nga faa dugg rek say mbir taxaw loolu lu mat di bàyyi xel la beneen bi ci toppaat mooy jigéen joo xam ne saabu bu karamam sëqee mu gént ñu wat ko loolu baaxul loolu lay tegtale ñett bu dee jigéen ji amagut borom kër pour mu dugg ci say dana xaw a jafe lool bu dee jigéen joo xam ne am na borom kër dana tegtale pour mu taxawal ak njaboot dana xaw a jafe mooy jigéen joo xam ne njaboot gu mu am. dana faatu balaa faatu moom moom moom ku jigéen ki bi ci desaat tamit danay doon jigéen joo xam ne kii bëri ay boroom kër lay doon bu sëyee fi ba tas mën naa sëy keneen jëkkëram gaañu mu sëyaat kii ba tas jëkkëram gaañuwaat kon yëpp ay misaal la yi wane ne gént ko kum faral di gaar rek yeboo nga bàyyi xel bu baax a baax euh, beneen bi ci toppaat mooy koo xam ne dangay wut place pour liggéey nga gént ñu lay wat loolu baaxul loolu bu dee place la. bo ci duggé pert, nga perte bo lebee xaliss jamm ba dugg ci mën nga dem ba ci biir nga perte ay jafé jafé la lay jural wala ay xat-xat motax ci anam bob ko gënt rek lu di bay xel la benen bi ci desaat moy ko xamné da nga gënt gis barab bu ngay liggé kenn dila wat wala patron fi dila wat loolu waxtu bu rek ya ba nga jug sa bop bu baax baax dana wané ni benn barab bi ñu ngi lay waja dak wa ila amna ci ku nek ci barab bi ko xamne ay pexam bu sottee mooy nga jóge ci barab ba mooy am na ci koo xam ne itteem yëpp mooy barab boobu noonu yow nga jóge fa wala ñu jëlee la fa loolu saa bu amee rek kum gaar ci gént yow boo nga jël see matuwaay baax xam ne barab boobu mën nga faa jógee tout le temps wala mën nga fa am ay jafe-jafe wala poste bi nga yor mën nañu laa folli loolu it lu mat di bàyyi xel la beneen bi ci desaa tamit ku feebar ba noppi nga gént gis ko ñu koy wat baaxut loolu it dana tegtale ne Eh, tawat ji mën na cee yàgg lool lool ka mooy sa mbokk moom nga gént mu tawat nga gént gis ko motu mooy day tegtali mën na ci yàgg kon koo xam ne dangaa gént koo xam ne eh, dafa nekk barzaq ba noppi ñu koy wat loolu it dafa bokk ci xeetu gént yi tegtala ni loolu ak njéggal la ci sa mbokk moom bu dee sa waajur la ak njéggal la ci moom eh, ba tey koo xam ne danga doon ñaan yàlla njéggal yow sa diggante ak sa borom nga gént ñu wat la ba nga set loolu tegtalu ak ñàkk de foofu day tegtale jéggal ci situation bi nga toll di jéggalu yàlla wala situation bi nga tollu di ñaan yàlla pour mu jéggal la yàlla mën na laa jéggal wa ilaa mu dimbali la moo tax ci anam bu ko gént bul tegtale ak ñàkk lay doon bu dee nag koo xam ne danga am jafe-jafe ak yoon ak nit ngeen di dem ci yoon yow nga gént mel ne dañ laa wat ba nga set loolu it bu dee ko amal problème ci yoon boo demee mën nga ci am gàcc wa ilaa doo am ndam ci mbir moom noonu nga am ak nit ki ci yoon lool it kum gaar ci gént na nga ciy bàyyi xel baax a euh, kon mbokk yi ñi nga xam ne aajo woon bi mën nañ koo jël mooy nekk nu affiché 78 443 75 ñi nga xam ne dañoo bëgg ñu defal leen lu aju ci wàllu firi gént wala listixaar gu leer alaakulli xaal mën nañoo jël numéro 78 443 75 di laaral ne compte TikTok bu mag bi ñu yoroon TikTok ko mujjee bloqué xam naa ci ay vidéo yoo xam ni dafa am jafe-jafe xam naa ci la baree ban mujj ñoo bloqué moo tax ngeen gis compte bi xam naa ñu ngi ñaan ñëpp partage vidéo yi te j'aime te abonné dana tax tamit dañ amoon ñu amaat ko ndax compte bu yàggoon la na war naa mat ñu gàtt gaan ñetti at waaye yenn saa yi liggéey mooy doxan day dem ba ci àgg lépp taxaw yàlla suñu borom am lu mu misaal jàmm bi kon YouTube bi mag vidéo yi ñu defoon yëpp bi bu ngeen duggee ci YouTube bi di ngeen gis yëpp waa yëpp a ci compte YouTube bi vidéo bu nekkoon ci TikTok bee rek bu ngeen ñëw ci YouTube bi dana fi nekk moo xam laaj wala tontu wala vidéo bu nu mës a def rek mu ngi suñu compte YouTube mën nañ faa dugg mooy sëriñ bi rek bu ngeen defee noonu di ngeen ko gis kon numéro bi moo nekk 78 443 75 26 ñi nga xam nag dañoo am kumte mooy mooy mbir yu tëju wala cet jàpp leen wala rab leen sona di leen yàqal lu bari teel a ñu am jëkkër teel a ñu am doom wala seen mbir yëpp di yàqu lool it bu ñu wootee ci numéro am nañ ci ay solution am nañ ay càngat yu ñu liggéey ci loolu di ci saat ñi nga xam ne dañoo bëgg jaaroo aju ci wàllu ubbeeku am nañ yoo xam ne da dox ci wàllu ubbeeku baax ak ay càngat yoo xam ne ci wàllu kaaraange lay doon dox ba kenn du la yàqal kenn du la indil ay jafe-jafe yooyu bu ngeen wootee ci numéro ne leen jox ay tegtal yu baax ak ñi am jafe-jafe ci wàllu hémorroïde wala ndoxu siti wala néew kàttan ci garab yi ñuy liggéey incha allah mënees mënees na leen ci jàppale ba suñu boroom defal leen ci lu faw ko seen jot incha allah rabbi kon numéro bi mu ngi noonu 78 443 75 27 ba tey euh, koo xam ne nag dangaa gént gis sa karaw nit yor ko di ko suul moom nit yor sa karaw ñooyam loolu waxtu amee rek yëgal ni am na ay def-def yu nekk sa yaram wala ñu ngi lay waaj a def dara wala yàqu la ci wàllu yaram yoo xam ne mën na la indil ay jafe-jafe. moo loolu ku ko gént rek na nga gën a teey bu baax xam ne am na ku lay jéemal dara wala am na ku nekk sa kaw mooy gént sa karaw beneen bi ci desaat mooy koo xam ne tout le temps yow dangay ngay gént di wattu rek fu la fekk loolu comme doon rek xamal ni am nga gàllankoor dëgg mooy yow da yàqule moo am saa boo yoree place wala dara ba am ci yaakaar rek da ngay yëg ne da ngay xëy xëy li nga yor ñëpp danga koy ñàkk loolu dina tegtale ne saabooy booy génn da ngay gént ñu lay wat benen bi ci desaat tamit eh, ko xam da nga genn sa wajur la wat da ngay waajur dugg ci dara lolou yeggal ni ak tere la moy mbir mom ngay dugg man nga cey dem ba ci bir am ci ay jafé jafé yo xam man na la yakal lu bare euh ba tayit ko koo da ne ñaanal ay nit ba nopi nga genn di len wat lolou na tegtale màndargam ijaba wala wërsegu yaatu kun jox safar nga diko sango baxna nga genti wat ay nit loolu sa bu amé rek né ne wërsëgu yaatu la wala njariñ li juggé ci ay nit ñu bari di ñëw ci yow la bu doon da ngay saxar lu aji ci walu place ngay gënd di wat nit loolu baax na dañuy xamal ne place bobu bo ci continuer euh, di nga fa am wërsëgu yaatu wala di nga fa am ci sa walu mbiri bop yu jéggi dayo wala yu jaaxal ñu bari bari motax tax ko gënd rek na nga sentu ay buntu wërsëg ay buntu yu bari bari taxaw na ci sa kanam bu dee da ngay waji dugg ci place gëntu ñu lay wat mom baaxul waxtu amé rek yëgal ne am nga galankor bu baax moy mbir mom ngay taxaw pour nga am ci réussite total, du yomb de ndax parce que mbir la mo xam ak ñak mo ci nekk même gënt jigen gi gënt ñukay wat tamit baaxu ak ñak lay tegtale wala ñak sadom, sa dom wala ñak sa borom kër borom ku tol jigen tamit man na tegtale ni man na baña mucc ci jàmm motax ci anam bobu bu jigen jigéen gënu ci bi ci desaat moy nga gént watu ci gént gi saxaat ci gént yëg ngeen watu nga ba àggal saxaat nga nag ci gént gi loolu waxtu ba amee nag dana am diggante booy toll boo xam ne sa wàllu liggéey mën naa am jafe-jafe lool wala sa liggéey mën naa taxaw waaye soo góorgóorluwaatee yàlla mën naa dogal li nga ñàkkoon mën naa ñëwaat wala lu ko ëpp mën naa ñëw loolu moom ci anam boobu moom baax na ba tey jigéen joo xam ne da nga gént di wat sa boroom kër loolu it wërsëg wuy jugee ci mom di ñëw ci yow la moy jigen ju gënt di war sa borom kër lool day tektal sa borom kër man na doon ay digënté yo xamni ak ñak man nako sonal lool bang koy dimbali lool moom ci anam boobu lool lay tektalé baax baax euh ba tayit goor go xamna nga gënt di war sa soxna ci bop nak lañ wax moy gënt di war sa soxna ci dana tektalé ne soxna la soy doon so xamni momi dana néew doole lool ci walu dundin ba ni mu waroon taxawee deug dëgg mën naa des ba koy jappalé ci ay mbir yu baree bari wala nga diko ko ci walu ay mbir moy ko xam nga genti di wat sa soxna euh, benen bi ci dessa tamit ko xam nga genti di wat sa wajur baxna lolé loolu nit ko xamné yaangi yaa xel lu dox sa digenté sa wajur wo même genti di watu fo xamné xamofa lolit ay bakkar yo wara djegul dana ko tektal moy nit ki def ay bakkar yalla di ko misaal pour mu war ko tuub loolu dina tegtale nga gént nekk foo xam dangay watu te xamoo fu mu doon loolu comme gaar ci gént na nga bàyyi xel ne bàkkaar yi ngay def wala mbir yi ngay defantu na nga ko wattandiku bu baax yàlla bëgg yàlla suñu borom bëgg na nga tuub ko balaa nga moo tax loolu du mat di bàyyi xel la baax a kon euh, gént di watu bari na ay mbir bi ci desaat tamit koo xam da yor doom bu nekk xale liir nga gént di ko wat loolu baaxul loolu waxtu amee rek. daa tegtale ni sa doom man na la yéex amal njariñ lool moy pour mu amal la njariñ dana xawa a lool wa ila di nga sonn ci mom lool mu dog la amal njariñ loolu it comme ci gent man nga bayyi xel bu baax a baax ne nitu wërsek lay doon waye njariñam man nga ko yex a fekke kon loolu it gënul ci walu gent inshallah allah euh bi ci des tamit ko xam da nga gént mel na nga nekk ci bisub tuddu di tuddu sa doom bonam ñu wat loolu it baxna waxtu wu amee rek yëgal ne yow mi gént gént gi na teg te ne yàlla mën naa def barke sa doom jooju wala njariñ wala xéewal yaatu yu yaatu loo xam ne yàlla mën naa dogal di nga ko fekke kon lii lépp ay misaal la ci gént di watu am na ci anam yoo xam ni gën am na ci anam yoo xam ne nag nekkul loo xam ne gën na ci aji gént ji waaye nag lu ci mantikaa doon eh, ci tolluwaay nit ki nag lay doon du caagi ne gént watu baaxul rek déedéet fépp la bon bi am na fooy toll baaxut na toll foo xam ne ay jafe-jafe lay doon am na foo xoo toll ay ñàkk la doon am na foo xam ne ak ter la ci ay mbir yooyu bëgg a dugg même bu dee tukki la nga gént ñu wat la baaxut dañuy xaman tukki bi dañ laa tere soo mënee toog mooy li gën wala soo mënee niggandiku nga xaar bàyyi jëmmi jamono nga doog dem même bu dee sëy tamit nga gént ñu lay wat loolu nekkul loo xam ne gën na daa tegtale sëy bi boo ci nekkee bu yàggee mën ngaa dem ba ak ñàkk mën na loo sonal kon alaakulli xaalin lépp ay misaal la ci gént waxtu ñu ngi ñaan yàlla sunu borom defal ñu jàmm lépp lu si jub ñu sante ko yàlla waaye lépp loo xam ne dëng na mat dig doomu aadama la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu